Et c'est de temps organisé par l'USO de Dakar en collaboration avec la mairie et la Ligue d'athlétisme de Dakar. Donc, euh, dans quelques minutes, nous allons commencer avec euh, les 8, 8 km junior senior hommes et les vétérans. Merci. Le départ du 8 km sera donné par le représentant du maire, monsieur Blanc. Atlas, Atlas, Atlas. Serré à droite. Serrez la à droite. Oh. Serrez la à droite. Ah, c'est devant. Devant. Serrez à droite. salaamaaleykum wa Wakam euh, tay dañ ñëw fii euh, en tant que maire Wakam pour assister la jeunesse organiser ak ñoom euh, journée des foulées de tank Ben matinée la boo xam dañ en communion avec la jeunesse jappalé len pour ñu mën def ben journée d'athlétisme bo xamné invité nañ ay sportifs yu bari ay partenaires comme les éléments français du Sénégal au Sénégal les militaires ñom ñep ñëwoon nañ tay et jeunesse bien aussi. On a tous les anciens champions, le président de la fédération d'athlétisme Mamar Mbaye et puis les adjoints au maire, euh, Abdou Diouf, euh, ancien champion du Sénégal Mouifi, euh, donc et d'Afrique. Je pense que nous sommes pas content pour déclarer l'athlétisme sur Wakam dañ Wakam dafa champion champion dans tous les domaines surtout en athlétisme

on a les champions d'Afrique. Euh, et euh, en athlétisme euh, on a beaucoup de de champions D'ailleurs, Momar Mbaye mi c'est le président c'est l'ancien président de la fédération sénégalaise d'athlétisme Nous nañu trop tey li def chaque année nous organiser événement bu pour tous les sportifs pour une benn destination pour l'athlétisme Nous avons naa nañ ko bon Momar Mbaye ancien président fédération sénégalaise d'athlétisme Ce matin, Wacam suis Wakam à côté du maire à côté aussi des du club de Wakam et de mes voisins venir aussi soutenir les jeunes encourager aussi les organisateurs à continuer comme nous ko défini ce matin et pour développer encore euh, la discipline qui est l'athlétisme surtout avec les clubs traditionnels ah yoo xam toujours ñom ñoo mën a gënoon a joxe de grands athlètes et lool nak légui nak maintenant il faut aussi que loolu su mënee dellu siwaat def na né do lu ci am solo la quoi donc ma ngi fi pour encourager pour euh, encore stimuler pour que les jeunes encore euh, puissent faire l'athlétisme quoi. Ancien président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, vous donnez le départ du 5 mètres. Gamme et les seniors. Il y a les 18 garçons et filles. Donc vous aurez à faire 5 km. Alfred Batili président l'Union sportive de Wakam euh, donc si wifi, nous fi mooy euh, ñun le colo avec Marie Wakam avec la Ligue de Dakar pour organiser la première édition de, des foulées de tank. Foulées de tank, donc c'est vraiment euh, ben cross organisé en prélude des JOJ de 2026. Tank moi Wakam Goryov donc première édition qu'est-ce-là mais pour les mobilisation euh, on a eu des centaines de participants des première édition là, malgré les moyens du bord on l'a fait avec les moyens du bord, mais il y a aussi dans un, euh, sur, dans un délai très très très très court. Il y a aussi dans un délai très court, mais n'empêche, il y a participants. Euh, les ligues sont présentes, les militaires sont présents, les éléments français du Sénégal sont présents, les populations sont présentes. Et donc on peut dire que c'est une réussite malgré les moyens du bord, malgré la logistique, malgré euh, toutes ces formalités euh, voilà en tout cas euh, les ñu pour la seconde édition qu'on va internationaliser là on n'a pas eu le temps de le préparer comme il fallait les sponsors ne sont pas présents ne sont pas présents les administrations publiques aussi on les a saisis bon c'est mais comme première édition là... ñu ngi participation bi l'objectif Maintenant, Inch'Allah, nous organiser la deuxième édition, espérant que ce sera une édition internationale. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Suma Tom. Djerejeuf. Suma Tewai. Barena Filol. Ah, daw ba raw taxul doon njiit a le mot koy sàkk ba la wax dara toujours la may wax toujours fu ma ñaanale suma ñaari wayjur suma ndey ak suma baay ñaanal suma soxna aji caw mbay njaay ñaanal alaaji Moussa Diouf Diagne parce que lépp loo xam ne am naa ko tey waxuma ponte ba genn ponte ba genn ñëpp xamu na ko mooy ngor ba tubaab jalaaw tunde wi muy ngor wakaam yoof lépp lu ma am ginnaaw yàlla ak yonte bi suma ndey ak suma baay Moussa Diouf Diagne li waral lii nag muy koros bi dafa ma dara nag ci sport xawma dara ci sport waaye ñi koy organiser nii maa ngi leen di gërëm di leen sant nga xamee ne doon naa président section athlétisme doon entraîneur maa jëkk a formé cross fii formé ay athlète C'est une première compétition nous faisons le relais 4 x 4 troisième relais 4 x 4 ah madame Nak, ma gis ko oo ko premier initiateur premier degré deuxième degré donne prof éducation physique bi mu organisé lii nag ñëw ba suma kër àndal ma convocation invitation mënoon na ko si bañ a fekk ma di ko sant di ko sant di ko sant wakaab nag yàgg na am ay international fi may jeexale si côté athlétisme maa ngi ñaanal ki nga xam ne mooy président US Wakaam à l'heure actuelle muy bàccali papam takk brassard équipe nos a US Wakam benn match rek la ko takkul mooy sunu deuxième édition US Wakam a US Rail booba temps c'est en 64 booba temps dafa gaañu Sita Cissé moo takk brassard booba maak Sita Cissé ñu ngi sunu 20 ans moo doon président à l'heure actuelle US Ouakam ma di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal nag yan bi ko yàlla yan yàlla na ko yaay olofal tol ba ni papam jële woon coupe senegal bi mu di ko jël coupe du Sénégal kii Assis Gueye nag doonoon président ba Bathily remplacé ko bay na waaram def na lu ko war lépp lu war si Ouakam lépp lu war si ci club bi def nako ba mu don maire Wakam ma diko ñaanal rek ah yéen bi ko mudon yéen mu don maire Wakam yalla nako yalla yàlla ci barke sayyidina Mouhamed fu mu bëgg yobbu Wakam sulubah, lu baax yalla jàppale ko liggéey bi mu sumb nak ci jumaaji yalla yàlla ko ci jàmm ba mu du fekk ci barke lay ah ma dale wa wa wa télévision bi nak ma ngi len di di len sante lamay wax rek moo si ne daw ba raw taxul doon njëg nit ku ne lu jiit sa judd la yàlla def si yow loo xam ne sa ndey sa baay dara sul man maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaatu wasalaam ala rasulillah jërëjëf. bon Ismaïla Sow nekk athlète banlieue athlétisme club jógee fee ca Mbour ñu recrutement indi ma fii nii bon ma nekk un coureur de demi fond prolongé. ce n'est pas la première fois que je participe à cross. Parce que moi, je suis un coureur de métier. Je suis métier. Bon, je suis content de trop cross fini chaque week-end chaque fin du mois gars organiser le melni pour saison voilà Je suis content de ba ci organisation suis content trop trop trop victoire grand et

képp ki nga xamante ne dafay bëgg nekk professionnel moom bon xam ngeen lu ci nekk liggéey lu metti dañ ci réservé wu récupéré teel a tëdd li des ñu jox ko borom bi bon man athlétisme li ma ci dugal bon mun naa ne passion la mais ñi ma dëkkal tamit ñu ma si dugal quoi parce que depuis base bon dama amoon benn talent bi daw longue distance mu nekk sama fort ñu dugal ma ci et tout ça ñu ne ma boo ci dugee mun nga cee génn te allah ma ci duggee ba léegi maa ngi gis sama bopp vraiment. bon di remercier sama grand yi Cheikh Sow remercier Ali remercier waa Sandiara remercier sama sayet ñëpp di leen di remercier bu baax a baax di leen naan kii bi dajee naa leen incha allah. matagul sax 4 mois bon ñu encadré xale yi pour ba ñu jëm ci leneen loo xam ne du noonu actuellement ñu ngi def efort yu mag. bi euh, marathon Wakaam bi mooy suñu deuxième participation première participation bi ñu ngi ko def à Rufisque.

maire bi tegagu si loxo jàppale guñu mais quand même ñu ngi am yaakaar ne dinañ ko def waaw parce que dinañu entrer en contact ak ñoom wax leen li ñu bëgg ak fi ñu bëgg jëmee équipe bi léegi nag si ñoom lay des mais en tout cas daal ba fi ñu nekk nii tegaguñ ci loxo jërëjëf merci beaucoup. asalaamaaleykum je m'appelle Nafisatou Seydi élève au collège Saint El Hadj Mamadou Ndiaye li ma duggoon ci athlétisme mooy certes que du ma athlétisme mais à chaque fois bu ñu defee devoir su ma amul mee note dina am au not bi gën a baax. loolu moo tax suñu professeur monsieur Guèye Amadem mu ne naa ñoo def naa def maintenant def naa ko même su fekkee jël ma même premier deuxième au moins jël naa troisième teem naa sama médaille platine. non maa ngi koy doog a def maa ngi koy doog troisième alors j'en suis fier. je remercie toutes mes camarades de classe aussi. maa ngi wax waa mairie Wakaam ñu jàppale ñu élèves yi nga xam ne bëgg nañu sport surtout daw na dafa baax déjà dafa baax si santé bi en plus.

donc euh, lu ni mel daan na fi xew waaye bi dafa am cachet bu particulier maanaam euh, dafa am lu ko lu ko lu ko soog lu mooy par exemple euh, dañu bëgg fii si Wakam amoon na ay xale yu ne woon fii section ADECIM mu bëroon ay xale yu bëri yu nekk si ADECIM mu am fi ay ay jaloore ay ndam andil fi ay ndam pour Sénégal donc ñu bëgg loolu nekk luy wéy dem nañ championnat d'Afrique Afrique indi fi ay ndam dem nañ ba championnat du monde dem am fa place huitième place et récemment am nañu ben médaille de bronze lors des Jeux islamiques yi nga xam ne ne ce na Turquie de bu ñuy wax Konya donc euh, bu may wax ne bi bii utenax fi daan am parce que bi liñ ci sentu moy bëgg nañu wat xalé yi déllu ci wat ci section tarif mooy xale yu ndaw yi ndaxte dañu jëm ci lu ñuy wax Euh, jeu euh, de la francophonie du jeu euh, jégalu Jeux olympiques Dakar 2026 Sénégal war ko organiser fii te Wakaam waru si del des gannaaw te ñu sentu woon ne ne section athlétisme bi xawoon na rafle te war nañu jëlaat ci xale yi nga xam ne ne seet nañ leen fii ak yeneen programme yi ñu war a dérouler ñu enrôler leen indi leen si section d'athlétisme tàggat leen bu dul dara sax am na lu nga xam ne ne seetlu naa ko man ndax professeur de PS la maa ngi jàngale fii seen Mamadou Ndiaye yor xale yi kam ñëpp xam ma fi presque euh, te li ma gis ren ci ay xale yu wéradi ñu ngay wax ay cas d'inaptitude dafa bëri ba jaaxal ma loolu itam war na tax ñu faral di def yu ni mel ndax xale yi di génn kër yi ñu leen di tàggat xale yi toog si kër yi te li ñu lekk baaxul boole ci ak euh, fu ñu jëm oto leen di yóbbu xale yi yëngatootuñu loolu doy na feebar yi bëri na dee bëri si mari te xale bu feebar mag ñi du ñu mat a wax bu ñu màggee ñu màgg wala feebar am na donc course bi leneen di ko soob mooy bëgg naa dina ma fi fekk wala du ma fi fekk yàlla rek a xam ndax ba kenn sàmmwul mais bëgg naa ah, at yi di ñëw euh, mu nekk course boo xam ne ne dina jeg frontière yi Sénégal dina dem ba nit yi di jël avion jóge Europe ñëw fii comme ni ñu koy defee si salon international des courses sur route

am euh, mosquée bu ñu mel jumaa jo xam ne ne tabarakallah nek ci suñu plage bi ak fi mu cité ci corniche bi ko romb diko seen avion bu jall Dakar seen ko donc loolu yëpp mekk na loo xam ne ne Wakaam war na mën a jaay à travers cette course là donc tourisme bi gars yi bëgg def muy tourisme sportif wakam est bien placé pour faire de cet événement là un événement sportif euh, séntu woon nañ si lu ëpp lii ci euh, sur le plan de la participation mais yàlla def na. Euh, am na xew-xew bu nga xam ne ne adduna bi yëpp war nañ ko seetaan tey muy final bi war a am tey euh, ba tax na peut-être ñenn ñi am nañu ay xat-xat ba duñu mën a ñëw tey waaye ñaan naa yàlla euh, que ñaareelu week bu nekk ci mois de décembre at mu jot ñu def lu ñu mel te yóbbu ko nag fi nga xam ne ne kenn gënuñu see yey muy monument de la renaissance tey amaana am na lu fa xew te jiituñu fo ba tax mënuñoo am autorisation préfectorale bi waaye dinañ teel a jóg de sorte que partenariat bi nga xam ne ne mu ngi dox ci diggante monument bi ak waa Wakaam ak waa Oussokam ak mairie de Wakaam que ñu mën tamit ñu mën a am loo xam ne ne war nañ koo mën a bénéficier si mairie bi si si monument bi parce que monument bi mënul nekk Wakaam te du jëriñ waa Wakaam ndax xaalis bi muy dugal ci tourisme waa Wakaam jotuñu si donc bu fa waa Wakaam soxlaa événement ngir yàlla ñu dimbali ñu bàyyi ñu ñu def fa waruñu ko woon a def fii ndax fii xat na waaw déjà nga envoyé nit dara leeru ma ne na am na ñu dem monument gisuñu kenn ñu wàññeeku parce que monument lañ njëkk a communiqué ñu dem ñu ne ñu du leen ko fi defee donc kontaan nañu si ñu fi teew ñëpp di gërëm maire bi Abdoul Aziz Gueye euh, si jàppale bi soutien bi di gërëm Alfred Bathily ak équipe am ñoom Badou Diop ak ñu si gannaaw ñëpp ñoom Seydou Kan ak ñoom ñëpp ñu leen di gërëm euh, si ñi fi teew

gendarmerie Wakam gàcce vraiment la sécurité a été sapeur pompier nak mom machallah allah mention spéciale parce que ñom fuñu dem ñoo ñu fay fekk sapeur pompier euh ñu ngi leen di gërëm di leen sante jëppal ak ñom nonu la Rufisque ñu wax fex ñom euh sikap biñ fa demee ñu nga fa tay tamit ñew nañu waaw mënon nañu yem sax si. Euh, dañuy nekk si gannaaw rek lu war dañu for mais dañu jàpp si organisation bi euh, motoir bi rek déjà bu jiitoo séeréer la te ñoom ay médecins si nekk ku si ku euh, am tolof tolof si ñi di daw mën nañ laa taxaw mais terewul motoir bi ndax bu buñ déggee séeréer bi oto yi dina am lu seen xel dem vraiment ñuy gërëm ñëpp di gërëm OTV di gërëm Fama Ndiaye bu Soleil di gërëm kii Lune TV vraiment yéen ñëpp jàpp si ak club bu dakaar yi. Euh, armée bi vraiment c'était bien c'était bien defuma di ñaan may ko une réussite totale euh, merci à l'USOCAM merci à la mairie de Dakar merci à la Ligue d'athlétisme de Dakar le président Salawari de la Fédération Sénégal d'athlétisme mention spéciale à M. Momar Mbaye ancien président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme et président de la région ouest africaine euh, Momar nekk na koo xam ne ne lu wakaam yëngu mu ngi si te Momar ba ma dalee tëgg cross ba tey fu ma fekk daf may jàppale ba ma dalee cross wakaam yàgg na mais Momar masuma seetaan waaw mën naa wax ne ne un tiers du budget bi Momar moo ko daan génne euh, vraiment euh, mention spéciale à monsieur Momar Mbaye euh, je remercie tout le monde la OTV merci Lune TV merci merci à tous